Навек! wa taala noo ngi julli ci yonent bi muhammadu rasulillahi sallallahu alayhi wa di sant xadimu rasul Cheikh Amadou Bamba di ñaan seen si dimakaar suñu borom yàggal ko fi ba mu eggalee naar yi ko Sëriñ Tuubaa bayoon ak ñi ko jiitu woon eggale waale naar yi boppam te nu ko moom te lépp dëppoo ak gërëmal Sëriñ Tuubaa di sant ñu fi teew ñëpp góor ak jigéen mag ak di jéggulu ci jataay bu yàgg bi waaye nag ñoo ko waxee sa ñoom may sàmb léegi euh, darajay bis bi dafa jar yendu di fanaan wala ngay tukki fii ba Chine ni ko yonent bi waxoon ne ñu ko waxoon ne atlubul ilma wala fisi kon Serigne Touba ci boppam moo liggéeyal Muhammadu Rasulullahi sallallahu alayhi wa ko kenn mu sonn ba mu fay ko lu mu sa fay kenn suñu borom ku ko nekkal mu nekkal kon ci pay gi mi ci dëgëre nekkin bi gi ko nekkal ci fonction boobu la lay nekkal moom itam kon kenn ku ne gis na ni mu fekkee réewum Sénégal nga xam ne dañ koo mën mënoon a méngale ak ahdul jahiliya ci waxtu woom feeñee nga xam ne dem na ba alxuraan ñu koy travestir di ci bandaan di ci fo di ci mayee soxla mu dellu si fekk éducation bi nga xam ne njànginu kese la wala àndul ak tarbiyatul islamiyya sëriñ bi nekk mu jadit soppi pédagogie boobu defar ko fexe ba defar ki nga xam ne day def moo di loo am am xam-xam tayal ba am ci dana ci moog mbaam mu sefi téere nawe def loolu nekk résistant tubaab bi jël ko jëlee ko ne ñu yóbbu daaray raaya laa ilaaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñu yóbbu ko Gabon lu tolloon juróom-ñetti at delloo si ko yóbbu ko pour jëm koo assimiler foofu problème bi sëriñ bi doon wax léegi dafay feeñ muy problème culturel ak problème linguistique Modi, assimilation dafa am ci Sénégal te yàq na fi ñu bari euh, ki jàng arab nekkoon ci sunu majaalis yi ci sunu maam yu tedd fi nekkoon Cheikhul Khadim maam Sidi El Hadji Malick Sidi Ibrahima Niass maam imaam la ñu mel di def majaalis jàngale su bas Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ci usulu diinul ula loolu nga jógee fii dem di jàngi ci arab nga confondre la culture arabe ak l'enseignement islamique ñoom parce que langue dafa xaw a doy waar lu dangereux culture bi mu àndal bu ko defee buñ ñëwee suñu mag ñooñu nga xam ne ñoo fi indi jàmm tey indi fii teggin ngor kersa jom xam-xam nga daal di fekk fekk yooyu ñoom ci biir langue xeer lool nañ la sa bopp ci biir parce que dañ ko dugal ci système d'enseignement bu ko defee boo ñëwee daal di bëgg a weddi mag ñi fi nekkoon bëgg a weddi fi newoon nga xam ne mooy soubassement wu euh, solidarité soubassement wu la paix au Sénégal bu ko defee ki nekk nga xam ne moom itam tubaab bi da koo yóbbu daf koy préparé ci ci système scolaire bi sax dañ koy xam boo defee primaire dañ leen waxal ay sorties ay sorties ñu ngi leen commencé bëgg a ay sorties sorties yi ay bànneex la nga ci woon ak i ay kaye na nga boo demee ba secondaire wala dugg ci nga xam ne da nga nekk crise d'adolescence boobu ci la ñuy profité

ci biir système bi jàngal nañ la luñ la jàngalee seeni jikko te doo ci mucc bu ko defee boo ñëwee dañu ñu yóbbu tugal may nga bourse boo ñëwee danañ la danañ fexe ba nga mën a remplacer l'administrateur bi nga xam ne dañ ko daan fay solde te yow duñ la mel ni du la jox indépendance ngay defal nga leen di defal lu gën lu administrateur bi daan defal te duñ la te duñu la fay dal hmm. loolu problème linguistique boobu moo koy indi langue ba tax nit ki bu jaaree foofu daanit ki day dem ba dootu nekk dootu nekk parce que fàtte na boppam saa yoo bàyyee la la fal fal lu ko dikkal la ko defee jóge nga ci li nga nekkoon te doo àgg ci ñoom mukk parce que Sidi Lamine Saara ngi nii nekk nan Tuunisul asima ku la gis ci boppam danaan la gàdde suñu waxtu ban heure a jot ngir nga mën a xool der bi nga nekk bi nga yor dalaa bëgg a wax ne la yow kax luus nga mooy neegal mooy nit ku ñuul boo demee France nga dugg ci métro euh, bu heure de pointe yi nga xam ne dafay am affluence ci métro koo dendalam loxoom nii sax day tegg loxoom wala ko bokkal toog bu fekkee daa nangoo dend ak yow rek place beneen daa amul bu place beneen di am rek mu jóg di la fi bàyyi bu ko defee nga ñëw yow defe ne yow yaay tubaab bi wala yaay naar bi fàtte sa bopp Cheikh Amadou Bamba nag foofu la tàmbalee moom foofu la ñu defare kuy waayam it foofu la lay defare mhm. bala may nuyoo sëñ Arouna Coumba Ndoffène dama koy joxe exemple ku ko ëpp diplôme ci senegal amul Sëriñ Bamba defar ko mais loolu amu ci benn complexe ci loolu kon ku sëriñ bi defal moo am solo bu fekkee dindi nañu lavage cerveau defal la jox leen seen jikko jox la seen melo seen lépp nga defe na yow boo ñëwee ci réew mi da ngaa war képp koo xam ne jàngul tubaab xeeb nga ko parce que da ngay defee ne ku dem ci école bi rek dañ naan intellectuel intellectuel c' est une hauteur de vue la comportement la façon de penser la loolu du ku jàggi ni ku jaar école rek ñu ne intellectuel loolu la ñuy wax de la même manière ci affaire u arab bi itam noonu la lay doon boo demee daal di bëgg a xeeb suñu mag ñi mm-hmm. bu ko defee yooyu fi ñëw na moo jaxase nit ñi te ñoom xalaat bu rafet lañ fi bàyyi loo xam ne dañoo bokk ànd ci ngërum imam Malik nit ki su fekkee li Seexul Xadim wax ne ngir mu mën a doon rek dana yóbbu ci yàlla comme ngir wérdi yi fa kullu wirdin yuridul murida li xadratillahi wala li yaxida سواء انتمى الى الجيلاني او انتمى لاحمد التجاني او لسواهما من الاخطار اذ كلهم خطعا على الثواب. وغير ما وايو غير يو يبتم دانيو دان ديغل نادم غير غير امام مالك لاكو ورال موي كوابيتاسيون بي غيسنا ني لو في اوب امام مالك لو تا جام كيغا بوكال لي نين ياكار كي لين غينا ياكار جام جوالا ما نيك ci ki nga bokkulul yaakaar kon ginnaaw ñoo bokk loolu déjà day doon fondement fondation bu dëgër boo xam ne day jëm ci gën a tabaxal euh, këri lislaam yi mm-hmm. kon loolu moo indi jàmm Sénégal bu ko defee jiixi jaaxa yooyu nga xam ne dañuy weddi man ñi koo xam ne yow suñu borom jagleel na la comme ci mën a doon ci turux yi bu yëkkatee sa baaraam bu sew mbooloo topp te doo leen joxal mukk fu ñaaw mm-hmm. te lu baax rek nga leen di digal kooku jàmm la ci réew mm-hmm. leneen lu waay indi yaa ngi indi mm-hmm. ak aw ay ci réew day mel ne pomme bu nëpp dugg ci biiru saw loolu lañ ci def attention bu baax kon ñu xalaataat bu baax yooyu ñu Sëriñ Tuubaa bay Sëriñ tubaab dafa wax ne nañu liggéey jaamu yàlla ajjana ju àndul ak jaamu yàlla xamu teraanga ju àndul ak liggéey itam xamu nu fonk loolu suñu bopp ne da ngeen di ba mënal seen bopp ndax kala mënal da lay sañal te day mel ne ku la abali bët fu ko def da ngay xool kon suñu indépendance Sëriñ Tuubaa moo prédé ba ñu am indépendance parce que daf ko def ci jikko yi te ci te dafa cee def loolu mooy indépendance kon bàyyi na fi njàngale moo xam ne ku ñu yóbbu bundu xatal lu ma juróom-ñetti at à fleur de l'âge foo xam ne tàggale la ak sa ñoñ yóbbu la déglu si nga yaakaar ne ñoom yóbbu ñu ñolox ni la bëgg laa assimiler pour defe ne ne comme jàngul français bi arabe bi la jàng nañ ko yóbbu ci koo xam ne bu demee dana am complexe foofu كوكا دم نوكو بتاغو كو بالا وخش موم داني كي ووسو كو وخش كين الحمد لله رب العالمين بودن وون الاسلام دي صاح فول جار فايده رك فايده جام امون رك جابو توك فول جام امون اك فايده جي رك جابو توك وهم راه خير مو رافد كون سيرن توبا لي دافا وخ دافنو بايي لو خامي ني ماكاي وخه mel na ne daf ñoo utal oto jaaroo ñi ci autoroute boo xam ne moo jëkk a nekk Ila Touba Ila Touba amoon na am na de xëy na dañ ko bëgg a goudronné ñu loolu ko melal ko waaye joxal ñu ñu ñëpp ñu jëm Ila Touba noo di ne la li mu wax mooy inni ujahidu bil ulumi wa bi taqwa abdan xadiman wal muhaminu shahid لأن فوف لا جهاد جهاد بيني دفني ودو بومبو دي ري سمروم جوليت تي بير جاك تا بوكاي ديف داغي ييكتي سي لو خنان الله اكبر يعني نخ سا بوب لولو دون اسلام دون اسلام تعمدا جهنم لول ويرمل كوراي نيت تاي كو سكر موي سفر bu ko defee ñoom dañuy jàpp ne buñ koy wax dañuy jàpp ne àjjana lañ jëm te lii raam ci ñag bi la jëm ci ñag buñ demee ba senegaal ñu mën cee seetlu ñeenti yëf man ci sama expérience bopp moo di la mag ñi bàyyi woon ci ma makaarimul axlaaq am na ñeenti yi du ci wàññi mooy kenn ku ne nam la dégg na la lay jàppe te xëy na ka ko dégtalee rafetalul waaye noonu la koy jàpp muy benn ñaareel ba moo di kenn ku ne fa nga ci xolam rek fa la lay attee du ci seet tabaraka wa ñetteel ba mooy ku munte jaar ci sa kaw jàll def la noonu ñeenteel ba mooy koo ëppale ak loo mën a ëppale rek yaane na loo loola mag ñi bàyyiwuñ ko mag ñi bàyyiwuñ fi loolu أي مكارم الأخلاق لن في باي كون الحمد لله لك من خلات بباخ لن يدف دي خلاتات خلاتات أدنى فنين توبا لمو أنا نيو لون دكور نيور بمو بند باي كوفي وقت مانونا يمتي وخ مان نيو ديگمو رجل إبوغم جل وعيدة في بند باي فيه mbind moomu du càggi ni dañ koy mu dugg ci tiroir yi ñu denc ko fi dañ koo war a gëstu di ko xam di ko xam le comme ni sëriñ bi waxoon léegi euh, mais ki gën ci yéen mooy kii jàng alxuraan te di ko jàngale xayrukum man taallama alxuraana wa allamahu am solo la kon sëriñ bi li mu jàng dëgg la ñu ngi koy jàng mu neex lool ci baat yi di daanu di mbëkk tant yi waaye nañ xam li nekk ci biir te mën koo jëf foofu kat la mën a jaar ci joxoñ bi mu nu joxoñ ba mën a jëm ilaa Touba jooju kon ñu bàyyi xel loolu bu baax a baax a baax di roy ci ñoom bis yu mel nii li ko waral ku mel ne Cheikh Mamadou Fadal euh, يالنا يالا يكونيلم دومن ني بي باخ لي شيخ سيني سام اك نيم في باي ييب كومي ني شيخ محمد مصطفى ايرن ما يي مل ني نين دان باسكو بوبا خاو خاو يي باري وول دا ني سيت ما كواليتي ولا تابسكي ولا تام خريط ولا يي ديمينا ني داجيلا غامو سيني باس بارك الله فيك بوكو دافاي ني داجيلا مبولم ني ñu naan ngeen wa taawanu ala al birri wa taqwa wala taawanu ala al ismi bu leen di def jëm gokku lu jëm ci noonante ak a bañante mais na ko def jëme ko ci ragal yàlla ak a bëggante ak ragal yàlla ak defal suñu borom loolu la wax waxtasimu bi xablillahi jamian wala tafaraqu ñëw na nag léegi kenn ku ne di ko wax ba mu booy lex yi waxtasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqu kenn waxtasimu bi xablillahi jamian wala kenn ku ne wax mooy mooy leen ci buumu suñu borom gi te bu leen tàggali ko yow nga ne da ngay mooy dagg sa wàll ba pare ah nu ngeen def ba du ngeen tàggali ko bu kenn ku ne daggee wàllam ñu tàggali ko wane leen ci su buumu sunu borom bi te du leen tàggalikoo mooy jullit bi ni mu yéene boppam ciw yiw lu ko ëpp nga ko yéene morom loolu dañ war a defoon kon Sénégal yàlla def na fi sutura bis bu mel nii dañ cee war a méditer di ko gën a jëriñoo ci xalaat yi bu baax a baax di ko def application pratique maanaam di ko jëfe di ko doxe di ko waxe ci lay amee njariñ ko defee Serigne Touba itam dimension bi mu am ngeen koo xam di ko xam ne yaakaar naa ne bu lawee di ko tey nañu ko traduire ci langue yëpp ku xam li mu bind ak li mu yéene doomu aadama ak li mu ci wax doo ko bañ mukk ci àddina Sidi Arabi Niass dafa dafa teel a xam secret boobu ba teel a xam ndax borom xam-xam ba teel a xam xool ma kii nga xam ne dañ laa yóbbu sànq la si ci sa sa xañ na sa njaboot fu ne ñu jaarale fa ci tar ba nit ñi bu ñu nekk ci mu nekk ci séjour carcéral à Diourbel bind bind ne li mu njëkk a def ne ñema maanaam jéggal na afawtu an il ahdaa in toran li wajhi man li wajhi rabbi yamul foofu mu ne yaa maalikal mulki yaa man jalla an qawadin irham jamel wara kon ñi ko bunu xataaloon bokk nañ ci ñaan bi mais bii dimension universaliste kan moo ko am pacifiste kan moo ko am loolu mooy jàmm loolu mooy indi jàmm fii kon loolu am te nekkoon ca mag ña yépp ñu am ko ci Sénégal am nañu or am nañu ngalam am nañu wurus am nañu lépp ci Sénégal loolu li gën a baax mooy nañ ko garder te bañ ko ñàkk lii ñëw nag tubaab bi beneen xalaat la ñëwee beneen xalaat noteel gi mu defoon daa ñëwoon ñu teel ñu baax lañu ñun ndax daa ñëwoon ñu bëgg ko teral mu indi ay fetalam bëgg na toroxal loola alhamdulilah résistants yii ma doon wax fexe ba wàll googu antuwul wala boobu wàññi nañ ko bu baax waaye dañoo ñëw ak beneen méthode bu bees mooy internet c'est-à-dire yeneen xalaat yi lu bees la waaye li ko instrumentaliser li nga xam ne moo ko Euh, concrétiser mooy internet kenn mënu cee mucc kenn ndax dalay yombalal sa àddina ci biir yombalal googu jaan jooju sëñ Modou Mbaye jox fekk yaa ngi jàpp ci genn bi jaan ji day wëlbatiku matt la noonu def ci internet loo xool mu neex la nangam ak nangam da ngay mujj xool rek di gis ci musiba yoo xam ne maanaam day tànn te loolu day yàq tarbiyatul islaamiya bi ndax lu leen neex xool lu leen neex dugal ci kon fi fi muy amee solution mooy xëy na di seet utilisation modérée bu ñu mën a dénk doomu aadama yi def ci sensibilisation bu dee télévision man ba ma nekkee France tubaab yii ci boppam am nañu yeneen jikko ñoom seen bi xale bu ndaw bi nga xam ne majeur am na émission yoo xam ne da am nay signe ndax liñ naan cin bu nar neex bu baxee xeeñ da nga koy gaaw a détecté bu ñu séenee loo xam ne rek xale waru koo seetaan dañuy jóg yi liñ jóg tëri fii nag da ngay seetaan ñoo ak san njaboot ay njaaxum yoo xam ne te dañuy seet heure boo xam ne heure heure bu ñëpp di seetaan la ñu wan na loo xam ne musiba la loolu nu muy def ba du yàq loo yendoo jàng ca daara ja ak fu mu fi mën a doon day mel ne lu ñu tiri côté da jàpp ci cat la laal rek lépp firiw benn waxtu wala benn seconde ca la yàq lépp kon Sëriñ Tuubaa fekkoon na ñu baax ña lañu fi defoon bu yàgg ci ay téere mu sonn ca lool mag ñi daan abalantey téere mu jaral leen lu ne ngir xam-xam ba mu làmboo ñu sonn ca ba am xam-xam moom mu fexe ba résumé yooya ndax téere ya guddoon na gudd goo xam ne doo am temps wu matériel wax dëgg yàlla parce que booba jamono nit ñi bariwul euh, temps bi bari da nga mën a toog di jàng suba ba ngoon léegi yitte yi bari naa day mel ne loolu daf ko gisoon visionnaire loolu mu fexe ba def résumé téere yooyu yëpp woy ko mu neex a jàng mu bàyyi na ko fi li ci des nan ko nan ko jàng di ko jàngale te expliqué ko addina donc ci langue yëpp lañ ko war a traduire bis bu ñu ko defee dana ñëpp danañ xam dimension bi seriñ Touba am nga xam ne ndono lim ñu bàyyeel mën naa yor addina bu wér a wér a wér euh, ma wax ne euh, li ñuy wax World Trade Center mooy euh, Twin Towers yooyu ñaari tabax la yu guddoon ay gratte-ciel Twin Towers ñooñu loolu bi ñu ko yàqee ñu naan ñii dañoo bañ lislaam di ko wax a wax di ko wax mais bi Serigne Mourtala waree dem pour def fi Bamba Day waaw États-Unis ambassadeur États-Unis moo ko nettali bu wér mais nee na dañu sauté sur l'occasion dañoo yàkkamti woon pour wane à la face du monde que am na l'islam pacifique boo xam ne ku ñuy wax Cheikh Amadou Bamba moo ko dogal moo ko def dëkk Touba te booba bu ko am naa laajoon wala borobu sikkim dong danañ tàggale boppam ak baatam gis nañ ko sëñ maam moon liggéey bi li ciy def ah ñu dem dem mu dem ñu défilé yëkkati baatu laa ilaaha illallaah muhammadu rasuulullaah muy raayee woo xaadimu rasuul yóbbu woon maam moon nee na fekk na ko ren ah, loolu fu mu jógee ah lu mel noonu nga am doon lu mel noonu ba noppi bëgg koo sàggane doy na ci li sëñ Moustapha Diatara doon wax ma di ko sant moo di xam nga kooku ci internet la profito te ku ciy wax xam na ne nit ñi gëm nañu Sëriñ Tuubaa gëm nañu suñu turux yi euh, xulafaa yi ku ci wax ci da ngay seet tarixa ba nga yëpp ngay tag borom tariixa ba pour nit ñi gën a gëm la lay wax lu mel ne saxaar goo xam ne dafa lonk ay wago da ngay fexe ba lonk wago wi bu wago wi bu la neexee nga seet wago wi ngay def or bi ngay def këriñ ak bi ngay def ay sagari sekkit bu ko defee da nga fexe ba mu dugg ci saxaar gi en tout cas loolu la ñuy def waxal la ci Serigne Touba fexe ba jàng xasaay yi ba nga koo firi di ci wax lu baax fexe ba capter sa attention fexe ba li muy wax dugg ci sa xol bu ko defee muy jël ndànk-ndànk ci xereñ goo xam ne waaw di ko jëmee fam la bëgg a sànni ca doom ba loolu dañ koy def méthode la bu ko defee boo déggee da nga naan waaw kii de taalibe la kii de nangam nangam fekk ak fiir la buñ la fiir waaw li ñu daan wax këppatal booy këppatal da ngay dugal dugub wala ndox ci biir làqu fenn wutub buum bu gudd saa yoo déggee bu commencé naan rek nga ñoddi jàpp nga picc mi noonu lañu def nañ ko xam bu baax a baax te di ko xam le kon euh, li ñu war a def mooy Serigne Touba fi mu joxoñ ñu jëm fa jaamu yàlla liggéey euh, di fexe ba dunde lu lew kenn ku ne na nga fonke sa bopp nga fonke ni sa morom ñu fonkante toujours damay wax ne ñaar ñu béejoo te ne gëm nañu Serigne Touba tax xam Serigne Touba ñu ne am na ci koo xam ne waxul dëgg kon ñoom jàmm Serigne Touba jàmm la fi bàyyi wala taadu man raaytum faahu yuxruju la ilaha illa allah wajal xulubana ala tawadudi بلا تنازع ولا تعصب آه، يقبل ولا تدبر ولا تدبر ولا تنافر ما قد يطوحنا انفروا وصابروا ورابطوا وتقلع لولو فري لولو فري بو باخ باخ باخ كون غيناو دالي تودو طالبي سيري توبا نانو فانكو لولو تطوبو غيناو لولو اوسي euh,

nga dem Espagne noonu Sénégal boo ci bëggee tudd kenn maanaam l'Italie complexe la. maanaam amuñu euro bëgguñu euro ay référence a ngi fi koo gis ñu naan référence a fi ñàkk. référence kay am na fi. xanaa am na fi bu baax. kon loolu itam nañ ko boole waale ci sunu culture bi nga xam ne ñàkk nañ ko ñu cultiver ko waaw ñu ñu ñu xalaataat ci. jëmbataat ko ci suñuy xel ak suñuy xalaat di ko doxee di ko waxee di ko jëfe lu am solo la parce que dañoo nekkatul nit ki bu nekkatul taggat tembe la mooy impasse dem na ba wéeru ci mur kon te solution am na dafa am ku ma wax ne man day jamono ji fi mu toll dama gisatul lu ma xam déggatuma lu ma gëm te xamatuma fu ma jëm ma ne ko ah xoolal ci njàngaleem sëñ Tuubaa mu jox la solution xoolal ci njàngaleem sëñ Tuubaa rek daal di am pexe da nga xam foo jëm loo déggati gëm ko ah mu ko kon nañu bàyyi xel ci yu mel noonu bis yu mel nii loolu lay jariñ loolu lay jariñ ñu ciy bàyyi xel moo tax bu ñëwee نعم جعلوا تلوه بون سانيون نيت كي بيجوجي سات سي كينا خامنئ موي جوريوم كيسرين تبا بون سانيون ده توه جيو سافون تجيو واي بيس بيداي بيسو سرين تبا بيسو فاتني بيسو نيان واي يتم سرين تبا دفع وخدني نيان سنو بوم اجعل حياتي ومماتي فرحة ليا وبي خير البرايا فرحة kon mbégte moomu day dugg li nga waxoon léegi mooy jàng xayra ayaami yow ma alxaaka alhamdulilahi kon nanu delluwaat ci Sëriñ Tuubaa nañ ci delluwaat source intarissable source intarissable lu jeex mukk da ngay naan lu jeex mukk ci àdduna te yombalal nanu lépp waaw te buñ goree dañ koy topp li ma doon wax léegi wutal nañu oto bu bees tàq defal nu ci gasoil wutal nu chauffeur defal nu ci même assurance teg nu ci route bu gën a yaatu boo xam ne Ila Touba la jëm entretien bi nag entretien bi nag buñ ko deful ci nun la moo war a def entretien bi entretien bi mooy fa mu la nga jàpp fa mu la tere nga bàyyi ولا مي باي جار صاح فام لا تير بون كو ديفه رك ديفنا ني وا سالوتير لو خامني دون نو امال جاري نيم نيب ا أه، دي سانت بو باخ سيري مامور دي شنو ولر دي دون شيخ محمود فادل بروم غنيلي بروم غنيلي بروم يرمنجا سما ما سا توك بوب Euh, am ku wax job du est-ce que l'ancien khalife général Serigne Mohamed Fadel est ton euh, ton grand-père oui c'est mon grand-père mais je vais vous montrer daal di invitation ko dama ko yemale ak sama xol tey duñ ko daggoon maanaam dama koy ni may dencee sama xol bañ sama xol dala sikki ci ni laa koy dencee comme relique laa koy denc xam kooku dégg na la Serigne Touba waxoon ci plaidoyer bi nga xam ne moom la Serigne Touba waxoon yaa maalikal mulk yaa man jàllal irham jaamel waraab dégg na ko mm-hmm. ma koy faral di wax ma dugg bis këram nekk gone gu ndaw romb fa lu man ñaar fukki 404 dugg ci biir toog fexe góorgóorlu ba dugg ci biir baraag bi fekk mu dugg ci néeg ba moom mii mu toog ginnaaw bi sax lañu ko gën a ràññiku ndax dañoo tasewaat Europe yàlla boolewaat nu foofu ci lañ gën a fàttaliku lool kooku bëgg maa yëkkati bëgg noo yëkkati mu ne bàyyi leen fi ñoom ñaar waay ba ñaari baaraam yu tedd ñoom ñaar waay bàyyi leen fi ñoom ñaar waay mm. jox ma junni ak ñetti téeméer ci waxtu woowu ma génn jënd rajo yi ñuy déglu rajo diffusion yi boo xam ne dafa xonq ak ñuul maa ngi koy fàttaliku kubéer gi dafa ñuul li ci des xonq ceeñeer ak jant bi xamoon nga jant bi ceeñeer li moo di balaa jant fenk loolu ngeen di gis muy lueur boobu di leer di annoncé jant bi kooku mooy xaadimu rasul mooy xaadimu rasul boo gene génnee ci lëndëm Dolar mina dalaal ila nuur génnee ju ci jant bi door a ñëw bi ñëw di muhammadu rasulullahi sallallahu aleyhi wa sallam di lam waxoon ne kaaba ga ku ko doon wax ak yonent bi ñu ngi Tuuba lu jëkk li achaatu shams la shams li ci des mooy achams mooy jant bi kon yonent bi sallallahu alayhi wa li may wax bu dellu si woon àddina dana gane si xaadimam mii xaadimam mii dana ñëw seet si ko balaa dem fenn loolu moom amuñ ci sikki sàkk kon ku am ku noonu am ñu noonu ci réew mi ay yu noonu mi ngi nii maamam ci ñooñu la ñu bari ci réew ñooñu ñoo indi jàmm ci mu réew kon loolu boo ko amee da nga koo war a fonk war mal ko toppatoo toppatoo ko kon euh, ñu ngi sant ñëpp jotaay yi dafa xaw a yàgg sant yi ñuy def nag moo di di sant soxna Astu moom sëñ Abdou Borom Dër bi lépp lu nekk maga ci sant soxna maam Issa Mbakke moom it suñu rakk la joo xam ne lu ma nekk maga ci di liggéeyal sëñ Tuubaa sëñ Arabi Ñas mi ngi nii mosu koo rate ñooy wax wax bi rafet te imam la chercheur la itam li muy wax xam na ko bu baax di sant sëñ Moustapha Diatara sëñ Moustapha Sow sëñ lu Diassé sama xarit yooyu sëñ Julit Kunte ñëw na fi sëñ Bass Abdou Khadir ñooñu ñëpp ñëw nañ fi Serigne Fallou Cheikh e, di sëriñu suñu aaroon ko ma nga fen ñëw na fi sant nañ ko bu baax moom itam ak njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gépp di sant ahlu jant bi ak asxaabu cañeer asxaabu cañeer gis ngeen ñoo yor sécurité bi ñoo sécurité bi benn koor bu leen dàq sécurité amul te ay nit lañ yoo xam ne mbooloo la mu nekk ci ndakaar ak li ko wër di déglu rajo bi bëggante ci ay wax lu baax di ko dégg ci seeni nopp ci rajo bi ba dajaloo nekkub daayira di liggéeyal Serigne tubaa ci jumaa yi Ndakaaru ci Poroxaan siyaari Serigne tubaa léegi Serigne di Mokhtar buy dem tubaa dañ leen intégré dañuy bokk ci organisation bu yóbbu nit ñi Makka te kenn ku ne da ngaa dégg sa moroom sa baatu moroom rek te mat nañu lu ëpp juróomi téeméeri yi xajatu xajatuñu kër Serigne Touba ci soppante goo xam ne kenn forcé wul sa moroom yaakaar naa ne boobu ànd moom ànd bu bu ko gën a dëgër mënul am Mouhamed Diop dana feddali li ma wax. ñi nekk fii def noonu alhamdulilah loolu mooy ànd kenn ku ne la nga yéene sa ci yiw nga yéene ko sa morom. loolu ñu ngi ci sant bu baax mu des li ci des ñu ngi sant bu baax imam Niang ci ñu muy jëfandikoo ak ñu muy jottalee njàngaleem Serigne Touba ñu ngi koy jottalee alhamdulilah di ko sant bu baax Mame Balla Ndione hmm, Mamadou Souare ñoom noo ngi ciy sant bu baax ci jàllale gi ñu jàllale wàll boobu bu ma leen tuddee tudd naa waa rajo yëpp. ak yeneen rajo yëpp yi nga xam ne ñu ngi doxal ci wàllu boobu te yàquñu jikkoy doomu aadama yi yàquñu jikko ndax yàq jikko dafa yomb jikko euh, publicité gis nga télévision lu tax mu dangereux gis nga te ak euh, publicité publicité sëñ bi publicité da lay won produit bu bon lool mu emballé ko emballage bu rafet boole ca yu la neex ci dégg lu lu neex a gis ci bët bu léeg-léeg sax mu jéem la yëgloo ba ngay taxamti bu ko defee loola am na lu nelaw ci sa biir gëmaq ci sa biir yu yóru mën ngaa dem ma ne ah nangam ak nangam dem ba ñeenti at loolu ne ba xëri ñëpp sous forme de refoulement génn jënd loola loolee nga gisoon ca ñeenti at ci ginnaaw lu mel noonu la média di def ci day déteindre la muy gis da koy def ci yoonu doomu adama bi bu ko defee xalu safara la mënees na cee togg waaye itam mënees na cee lakk kon nañu defar suñu Sénégal te bëgg ko te xam ne jàmm rek moo fi xaj sëñ Arouna dañ koy sant bu baax ndax daa def lu jafe ay bus la jëlee ak i oto ay bus ak i oto la jëlee Dakar maa ngi sant Mbaye Sarr man mi sant bu baax ci suba Mbaye Sarr suñu kàddu day suñu xarit bu baax baax a baax moom la jëkk a jox oto may ma oto pick-up ma ma ma ko ci maaw seeyal ko ci maaw rahmat te kenn yëgu pick-up waa maaw rahmat yi ñu ngi may jëkk def boole ca camion ma dugal ko ci maaw rahmat ci camion yu ma doon jaay. alhamdulilah maanaam kon sëñ Arouna euh, koo xam ne ne Sénégal yaa ci ëpp diplôme sëñ Touba defal la nga mucc ci li wax léegi la koy firndeel mooy fa ñuy wax Toucar fay tabaxal juma joo xam ne 35 millions fii ma toll nii na ca coffrage bi lu jege 20 dugg na kon jàkka taxaw jàkka taxaw. mu ne ma soo noppee sama jotal ñu dem. kooku lu ñuy wax si Sëriñ Tuubaa dëgg la. te yéen a ngi ci man. ñuy ñuy itam suñu jigéen ñi àkkaat yi. am jom bu baax fu mu jëm am wëllëre ndax wëllëre wa uufu bi ahdi uufu bi ahdikum wa iyyaaya farhabun wëllëre ku ko fekk ci suñu borom sax daf lay def muy am wëllëre alhamdulilah. ñu leen di sant bu baax di leen di wax gën leen a jàpp may dénk itam wax dëgg yàlla ñi nga xam ne maay seen jëwriñ ci pencum Cheikh Mamadou Moustapha ci ëttu Sëriñ Tuubaa ñu jàppaleel ma ko bu baax a baax ñu jàppaleel ma ko te yaakaar yaakaar naa ne ci réew mi ruq bu ñu fa bu ñu fa xajalul amul kon noo ngi koy sant bu baax sëñ Mamour su sa daraja yi waaji ñu tëddoo dafa lu ma sal wax suñu borom dogal ndax day xam ne suñu borom dogal na ko ba noppi suñu borom ànd ak moom barkeelu laminam ñaanalal ma ko lépp lu yéeneen suñu borom defal amin amin amin amin kon jërëjëf Mamadou Souare nga santal ma waa asxaabu Thiéniere yëpp seen taxawaay rafet na seen taxawaay rafet na lool wax dëgg yàlla jóge fii ba Dakar sol seen tenue yu ñëw ngir aar ñi fi nekk loolu lu rëy rëy la kon noonu ngeen sant leen gërëm ñu ngeen fa bàyyi tañ amoon yéene ñëw itam ma jot leen suñu cant ci ñun noo ngi sant Ahmed Lamine Sarr bu baax a baax ndax suñu borom moo nu boole woon yàgg na lépp fanweeri ma bokk nekk Tunis sul Asima ñu jàng bokk nekkoon France itam ñu jàng ci bitim réew te ku am valeur la ñoo koy sant bu baax di ko gërëm di ko ñaan mu jot ñu suñu cant ci sëñ Modou Kara dañ sama xarit di sama valeur maa koy ñaan nga nekk sama interprète auprès de sëñ Modou Kara ñu transmettre mes meilleures salutations ak ma gratitude di sant képp koo xam ne nag yaa ngi bokk ci daayira bi nga xam ne maay seen jëwriñ muy Majmahun Nurayni nga xam ne lu ma mën yéen a tax su ma amee jot ba Serigne Sidi Mokhtar di ma sant ci liggéey bu ma war a liggéey wala Serigne wu digaloon ma ma war a liggéey ci Touba wala Cheikh Mamadou Lamine Bara ma bokk ak moom di xewlu guddi ci la may wax sëñ Mourtala may dégg sëñ Moustapha Lakaram may dégg mu ne ma Cheikh loo bëgg a def ci Touba ci lu baax bu ma tabbu Serigne Saliou wax ma ne ma fépp fu ma am ci Touba ci suuf joxeel loola moo dàq lépp alhamdulilah kooku kon noo ngi leen di sant njabootu Serigne Touba gépp di sant sama xarit yi bu fekkee nag nangu nañu Papa Diouf ñu ngi lay bu baax nga jot leen suñu cant Moustapha Mbeng ak njabootu euh, njabootam gépp kon man maa ngi wane ni gii itam bi ñu ngi ci senegal gépp ak yi ne bitim réew dëkk yi bari na mënu ma leen a lim waaye démb laa leen woo ñu ñëw ñu dajaloo saafoon teewaat euh, waxtaanaat ci Serigne Touba delloowaat suñu borom ci tabaraka wa taala waxtaane ko. كنمو غنا رافتي انم كون الحمد لله ما نغي سانت بو باخ ناخ لومو مان يينا تاخ دي سانت بروم شريد يينا كتوبا ندا خامني 13300 شريد لو يو خامني داني افليو ان كوربوراسيون ندا خامني دايو نيكوب دايو اي دايو ما نغي ندي سانت بو باخ تي جابلي كنو اوبلو تون لولو نيك نتي شريد يينا يو خامني ني جاب دي سانت بو باخ مارشان زامبلان يي خامني ñi ngi ci dëkk bi te ñoom it ñu bari lool organisé wu nekk suñu ginnaaw lu ñu wax lañ wax lu ñu waxul waxul bari jàng danañu jotti leen suñu cant ci ñoom di sant soxna Astu ak soxna Ami Silla moom sëñ Soay bu Mbakke ak jigéen ñi nga xam ne ci tuubaa ci majorité bi noonu jàppale ci liggéey bi nga xam ne dañu ko dénk mu jëm ci liggéeyal euh, euh, taalibe Sëriñ Touba ci biir Touba di sant bu baax sëñ Modou Mbaye Samb ni mu ko waxee dëgg la lu bare bari da koo seede ci ñun te kenn ku ne gis na ne rôle ba sëriñ Moussa Ka doon joué njëriñ la di yee doomu adama yi ndax nit ñi ci li ñu dégg rek nga leen ko mën a waxee mi mm-hmm. koy wax ci sëriñ Touba ci bàyyiwu ci dara te fu mu cëggu basi la boo xam ne fu mu waxee ba bare lu bare bari dana fa ruus ñoo koy sant bu baax mu nekk suñu seere ni ñu ko waxee dëgg la du ñu sëñ Saliou jox loolu ci loxoom nii lañ ko teg mu nekk suñu seere ci wàllu bi kon moom itam ñu ngi koy sant bu baax sëñ Dongo Mbuub maa ngi koy sant barki démb rek ci bis bi émission daa am ñu war koo jëmale ci màggal dama ko ko wax fi saa si mu sol dàllam daal di jubal ah alhamdulilah loolu sëñ bi am baax la sëñ Tuubaa la ko defal waaye yëpp boppam la ko defal kon yàlla ko yàlla fay moom itam te ñu mel noonu bari na dañoo jaar foofu rek waaye ñu mel noonu bari na lu musul la ñu bëgg sëriñ Basiru kan ah sëriñ bi day nee na kitaabun bihi narju minallahi rahmatan wa narju bihi dunya wa uxra min alkaram kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp sëñ Moussa Moussa ku ma xam xam nga fu ma taxaw taxaw na sëriñ Basiiru dafa seeyaloon ñeen fukki dongoom ci daara Cheikh Mamadou Moustapha daara ja mooy samay tool tey fa lay bay ren jii fa laa bay moo <laughs> nekkoon daara mag ña sëriñ Tuubaa dafa joxoñoon Cheikh Mamadou Fadal digli joxoñ Cheikh Mamadou Moustapha tindoo ji ñu ànd ak seen rak taxaw bu baax ñu doon jéem di liggéey di jaamu yàlla tey siyaare si alhamdulilah nekkate booba ma ngay def li ñuy wax décentralisation décentralisation ay pôle yu yu wër Touba sëñ Massamba dana ko Daaru Karim maam Thierno Daaru Moxti mu nekk ay cercle yu wër bu fekkee da nga am sa alal bëgg mu ñoom mais fokk nga wutal ko lu ko protéger te Touba monsieur su fee mooy yàlla ba monsieur su ko def daa seet suuf soo xam ne deret mosu faa tuur que dafa nekk ci confin euh, euh, nu euh, ma frontière Njàmbur Jolof Kajoor Jolof Bawol et nga xam ne xam nga guerre mhm. li ñuy wax non man's land mhm. day am mhm.

di fi def ay retraite spirituelle di seet di jaamu boromam di seet nu mu xalaatee yoonam bii nga xam ne daf koo te mu nekk lumière addina bi yëpp nekk jëriñ loolu lu am solo la kon sëriñ bi def loolu suufam si dañ ko ko warmaalal ki tànn fi nga xam ne suñu borom tànnal na ko foo xam ne monsieur Soufa mooy yàlla nga ñëw nekk doxal dem foofu ne lu ma neex laay def laa fi nekk lu ma neex laa fi doxal ah, yaa koy toll. ومسكن يسلم من تجاري ونالي بمن جاري gis nga foofu itam sëñ bi sëñ bi dafa doy kiimaan man wax dëgg yàlla ba ma jëkkee jàng loolu xam nga loolu ku ko xamul da ngay defee ne non sens la te jamono jooju da ngay defee ne musa musal sama dëkk yi te te may ma ndox muy daw te musal na mais loolu dañ naan xaw ma nu koy waxee. dof ndof. waaw loo xam. en tout cas bu dee ci dissertation yi lépp. dina ci dox ma. non ركي باجة في الخفر يا باسدو وسراجة واو الله ليتم man bi ma jëkkee jàng woy bi jox ma ndox ma gis ko mu neex ma lool ma tudd guddi bu mu yàgg ma xalaat ma ne kii nga xam ne kat suñu borom moo dafa kiimaan ci moom may ko fa saaxa boo xam ne ak mën a mbind boo xam ne karaamati xattu yadi mu bind loolu xatuyat yi nañu xam lan la ci jublu mu ne sama wa maskani sànni musalal sama dëkk bi ci kàccoo te may ma ndox mi ñëw bi ma duggee nag ci ndox mi ba gis jafe-jafe yi pakk yee padd yee këtt tël yee ma ne ah sëñ bii kat ca téeméeri at gisoon nañu téeméeri ca ginnaaw gisoon nañu kon nag maa ngi door a xam ne suñu borom na ko ne ku bëgg def ci ndox mi lu baax da nga jaar ci kaw kàccoor wala ay kàccoor jaar sa kaw. ma di xam ni bëggoo lu am la alhamdulilah Serigne Touba moo nu gën kenn mënu ko fay waaye nag nan ko jéem a rek. li ah, Serigne Saliou waxoon naan saytaane mi ngi tàmbee ci ah si li man mënuñu ko. li mu def duñ ko def nangam roy daal roy yonent bi ba niroog moom ba jaxasoog moom ba àgg ci fi nga doon ba jaxasoog moom suukar bu seeyee ci ndox nooy def noo koy tàqale waaw chimiste ah, ah, alhamdulilah kon ñoo ngi sant ñi fi teew góor ak jigéen mag ak ndaw di ñaan ñu koo def ndax sëriñ bi dafa jaamulu yàlla dafa liggéeylu te loolu itam trésor la yoo xam ne mag ñee ko fi bàyyi yoo xam ne nanu ko fonk bu baax ndax loolu ci la Sénégal mën a amee ndam te émergence munta am sans la bu jàmm amul doo sañ jaamu yàlla doo sañ julli doo sañ def dara doo too ko tal bu jàmm amul kon développement ak économique mooy Serigne Touba mooy Serigne Touba loolu la jàngal kon alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi sant ñi fi teew te di gën a dénk ñu topp ndigalal Xaadimu Mustafaa yi di di ko jëfee te sincère suñu diggante bëggante bàyyi ŋaañoo yi wax yu ñaaw yi ñu bàyyi ko suñu diggante te rafetal suñuy xol kenn ku ne la nga yéene sa bopp nga yéene ko sa morom te kenn bañ tooñ kenn bañ a tooñ kenn ndax aw ay dafa baaxul ndax du lu yem ci bopp borom kon alhamdulilah la sëriñ bi waxoon rek yàlla nu yàlla dellu ci sunu Muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ak ci ndigalal xaadimu rasul man dëkkaloon ne man talabal wusula lil jamili fal ya'tasim bi sunnati rasul sallallahu alayhi wa sallam